asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, xanaa ñu del si ci problème mu nervi euh, problème mu Barthélémy Dias ah, mu problème boo xam ne le ministre de l' intérieur daf ci war a jog euh, bu ngeen fi seetloo il y a deux semaines maa ngi génn benn vidéo naan le capitaine Touré futur ministre de l'intérieur ba ma koy wax it amul benn en boo xam ne dama ko jëlal la général Tine mais dama xam ne mag la te mag ñaare day am yërmande mag ñaare day uuf gone mag ñaare dafa am yërmande gu muy am ci ab famille ak njaboot te Balse mi du moom dong damay bañ lim lu bari ndax moo leen jiite Barthélemy jàngul Barthélemy yaree su Barthélemy c'est un écran Barthélemy catholique googu ñu wax sax gëmu ko muy nit koo xam ne ci ak réewandeem ci la sukkandiku muy ay diplôme am mu di ci añ di ci reer di ci ndékkee njogandiku le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur a ca dëgg dëgg dëgg dëgg war ngaa yëngutu Barthélemy nit ku war a bàyyi ci mbedd mi Barthélemy dañ ko war a jàpp tëj ko Barthélemy rey na nit Barthélemy alal yoon ci mairie bi lépp sàcc na ko moo baayam ñoo combine di dem ak di dikk ci Macky sàll lépp loo xam ne mairie bi dajale woon na ko Barthélemy sàcc na ko loolu yow leer na leen kon ministre de la justice ministre l'intérieur jóg bu xeex amee ci dëkk bi responsable ngeen ci doon le président Ousmane Sonko d'accord ak sax ca nam waxe d'accord ma ci ndax eh, moom kilifa la moom xel mi ne ci Barthélemy Dias génn Barthélemy du yàgg mukk mukk mukk ba man la boppam dara Barthélemy dafa ne buñ ci jàpp du am ndox moomu laaboo ku mel noonu ku mel noonu en tant que premier ministre waroo tontonto ak moom waroo tonto Barthélemy il faut l'oublier mais ci biir oublier boobu dama ne le ministre l'intérieur war naa jóg seet ni ñuy def ba téye Barthélemy Dias bi damay benn nit faatu benn nit faatu Barthélemy jaru ko benn nit ñàkk ñaar téeméer ñaar téeméer Barthélemy jaru ko te lañ def ndar ñaaw na lañ def Abbas lu ñaaw la ñeel Barthélemy organisé ba parti maire yi ba siège Khalifa Sall bi ñu yàqte ko ba tey mu ngi ci dëkk bi dox du dëgg du yoon Barthélemy dem na ba jàppalu ay nit def leen ci kaso bi xale yi dañuy génn tey feebar kon Barthélemy dama ne. Jean Paul Dias gënuñu Jean Paul Dias gënuñu bàyyi Jean Paul Dias gënuñu doomam bu fi nekkee di turbale ak a toppatoo toj nit ñi dañ ko war a téye Assane Diouf moom ko wax bett la defoon naa ne ku yeewu la ndeke tey la gën a mën a nelaw tey la gën a nelaw Assane Assane nit day amam xel fii nga taxaw ci Macky Sall su yooxu ko guddi bëccëg suba ngoon Macky fexe ba yàq sa liggéey bépp ñu doon say wëllëre nekkoon la yow fii màkki takk la ba nga dëgër dellu ci tëj la ci kaso bi toroxal la ci sa kanamu ndey toroxal la ci sa kanam yi bokk lu bon looy màkki def na la ko tey yow nga wàññi ko mën a demaat di ànd ak waa kër Sall man bu ma déggee asan dama rus nga rus waaw je n'ai rien contre toi nag je n'ai rien contre toi tey laa la gën a bëgg tey laa la gën a estimé ah waaye rangé waatal sa mémoire bi rangé waatal sa mémoire Ousmane Sonko defu lu dara. Assane Ousmane Sonko baax la Assane Ousmane Sonko doomi góor pire la Assane Ousmane wàññi la gën a man moom la gën a man sooy def yi continuer def yi waxuma la yow waaye du ku la xam sax dootu jëriñu ci réew mi waaw nit nag day xam ay njëriñam nit ay bokkam da waroon xam seen i njëriñ nit day ànd ak i bokkam sa bokk yëpp yëpp dañoo jóg ànd ak Ousmane ñi nga fi bàyyi woon ñu ko ànd ak sonn ci yow lool Assane tey boo ñu ko mën a ànd ak Barthélémy Dias man damay rus damay rus damay toog sax ci ay waxtaan bu ñu tuddee damay jóg dem ndax cofeel gu ma amoon ci yow Assane euh, wàññil sa tànk wàññil sa tànk te nit day am conseil nit du dëgër bopp nit du dëgër bopp waaw comme ne nga taalibe nga te taalibe murit nga war ngaa mën a ànd ak dal te xam ni ngay defee ak ni ngay waxe réew mépp ak murid yëpp ñoo ànd bëggandoo Ousmane Sonko waaw kon Assane non nga dellu ginnaaw lu ma la ñaan la waaw buñ la jàppee fii ci kaso bi mu musuma neew mu naqari ma lool waaw lu ne wax naa ko ci yow te bu ma dégg ñu ay Barthélemy Dias bii nga àndal damay damay damay kersawu Assane damay kersawu en tout cas ce qui est certain mooy le ministre de l'intérieur war ngaa jóg li Ousmane Sonko waxat dëgg la du toog. ak ñu di ko xaañ ak a dóor ak a dambate fayu dafa yëpp Ousmane looy def nañ ko ko ah da loolu ku tudd ma jàmbal lañ ko war a téye ma jàmbal dañ ko war a téye Cheikh Yérim Seck dañ ko war a jàpp wax naa leen mooy kan dañ ko war a téye Assane dañ ko war a téye Adama Fall xaw Moustapha Fall xaw Moustapha lan ne dañ ko war a téye xale boobu sant ngeer dañ war a téye dañ leen war bu doon Cheikh Touré kenn waxatu ko ci àdduna une révolution dafa ànd ak rey dafa ànd ak peine waaw loolu xaañu Samb waxoon war nañ koo taxawal mu wax pourquoi ñu war rey Sénégalais yi ah, pourquoi ñu war leen rey ak buur day rey ah c'est criminel artificiel dañ leen a war a jàpp teg leen ci yoon mooy lii dëgg te ngay yoon waaw Ousmane bu fekkee ne ministre de bii bi mënta dem man maa ngi proposé maa ngi proposé le capitaine Touré maa ngi proposé capitaine Touré gone la comme ñoom waaw capitaine la ma la xam ne guerre xam ne lépp man naa enquête te mën naa duma gone la gone gone lay xeexal mag du xeex ak gone waaw moo tax maa ngi encouragé le ministre de l'intérieur moom ci boppam nu proposé capitaine Touré parce que mag du xeex te xale yi dañoo réew yaradiku dama ne ñii duñ nit duñ nit duñ nit te maa ngi regretté nag noonu ko Ousmane waxee parce que loolu dong la mën a wax amul leneen lu mën a wax parce que dafa sonn Ousmane dafa sonn dafa sonn waaye na xalaat ne na il est premier ministre na xalaat ne réew mi jàmm lañ fi bëgg na xalaat ne ak mbaam ak ku la wéq nga wéq ko da nga la jaari mbaam yu wéqante te ñun dépassé nañ loolu Barthélémy Elias Pape fay na ci àdduna te dootu génn kaso ci dundam lii ma wax mooy li am ci problème mairie bi du génn ci kaso bi la am sàcc problème mu Ndiaye Diouf mi mu rayoon du génn ci kaso bi li saaga yi ak lii mu def Mer ak lii mu def Abbas ak lii def Khalifa Sall ci mairie bi Barthélémy ko war a téye kooku mu àddunaam yàqu kon Assane Diouf Assane Diouf yamal ci kuddu njuroo fa ci gayat nit day am i teggin nit day am i teggin waaw bañu ma la xasuma dara waaye képp ku mën a sol daal di màkke doo doomi aadama maa ngi ziare te jégalu bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm yàlla rek am yàlla man yàlla bu yàlla suturaal ma ngeen soññe nag ngeen focus que jël assemblée sam 100 pour cent jox ko Ousmane Sonko pourquoi ma naan 100 le Sénégal mënut dem sans les pays du Sahel les pays du Sahel mënu ñoo dem sans le Sénégal les pays du Sahel eh, dañoo dajaloo Niger Mali Burkina Faso à 100 pour cent lañ def. jox ko seen dirigeants yi pour ñu mën a doxal pour Ousmane mën a doxal da ngeen ko jox cent pour cent assemblée bi ngeen ànd bu ko bu ñu fekkee euh, les les pays les pays du Sahel daañu man a booloo déggoo waaye assemblée rek di werante di saagaante di xastante loolu jeex na tàkk kën njër réew mi ah, ndox ñun ñëpp ñoo ne le changement ñun ñëpp rek mu soppiku kon yéen assemblée bañ a hésité jël ko cent pour cent cent pour cent ko ci classe Barthélemy bu gépp dañu leen war a denc bàyyi leen foyante du ko foyante Barthélemy dañ ko war a tëj c'est un vayu nañ ko jàpp téye ko tëj ko moom ñu dégg te yoon maa ngi jégalu baax te ziara ñëpp yàlla bu yàlla suturaal te lu ci réew mi man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des yàlla bu yàlla taxaw yàlla bu yàlla taxaw te indi jàmm ci réew mi jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf.